Mm-hmm. waa Abdou Aziz maa lay nuyu di nuyu euh, Medina TV rawatina di nuyu waa Medina ak waa APR yëpp noo man sama wax lu gàtt lay doon Cheikh Ahmed Tidiane Ba sama bakken bii laa si laa ko jox sama bakken bi nekk na leader boo xam ne li muy def Medina amul kenn ko ko fi def du ñu nangu ay ay nit ñu tekkiwul dara nekk si Facebook bi di ko yàq lu lu mel ni xamee loolu pour lan ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba dayu bi mu am nekk si Facebook bi di wax di n'importe quoi Cheikh Faye yow la ñuy waxal li ngay wax li ngay wax. dañu bëgg nga arrêté ko sinon boo ko arrêté wul di nga gis leneen ñun waa Thiel ken xamee wuñu si lu ñàkk fayda ñun duñu wo Cheikh Ba Cheikh Ba duñ ko dégg téléphone duñ pour ñu gis ko problème la ñun kenn yónnuwuñu ñun ay militants fidèles lañ am na loo xam ne ku ko def suñu leader di ñu gis lii nag avertissement la li muy def na ko arrêté su ko arrêté wul dina gis leneen loolu laa am li may wax. dégg dégg dégg dégg guñu déclaration. ce qui veut dire que seen déclaration bi en tant la moo wax la benn affaire si ñun ñun waa Thiel si ñun ñun xaaruñu ay CATB ay APR ñun seex amee Tidiane Ba lañ gëm suñu bakkan lañ ko teg parce que dafa am lum ñu won amul benn leader bu mel ni moom koo xam ne du wax lu ñaaw du def lu ñaaw day def defaral nit lu baax suba ñu koy fay lu bon Cheikh Faye bu nekkee lu mu doon c'est grâce à Cheikh Ahmed Tidiane Ba am na loo xam ne sax Assane jotoon na ci avancé dinaa ko bàyyi moom mu ñëw mu avancé Cheikh Ahmed Tidiane Ba kenn du ko laal intouchable la Médina ku ko laal di ñu jot parce que Seydina Mohamed laa la wax amul ko laal di jot loolu lu may wax man waaw man faw ma waaye teel bon salaamaaleykum mbokku Médina mbokku CATB mbokku waa APR yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ah. mooy li ma wax sànq rek euh, Cheikh Faye yow danga amul loo war a wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba yow bu doon gor nga su doon gor nga bu doon yow sa ndey gor la sa baay gor la nga juddu ñetteel leen doon gor yow tu n'as rien à dire Cheikh Ahmed Tidiane Ba parce que koo xamante ni waxuma la yow mais yow sa biir famille sax kooku da di dimbali da di dimbali yow miñ jox yow yow responsable bi la yow boo amee dayoo biir Medina ñu lay ngay wax ñu lay déglu sax grâce à Cheikh Ahmed Tidiane Ba parce que moo la jël teg la ci wetam jox la post boo xamante sax ñi dinañ ñëw naan la Cheikh Faye lii a Cheikh Faye laa mais bu du woon loolu yow amoo dara looy représenté maintenant kenn xamuloo woon kenn musu la xam amu yow yow amoo benn cri crédibilité amuloo ko biir Médina parce que yow yow doo yow doo référence yow doo royukaay parce que yow boo doon royukaay yow boo doon góor dëgg rek yow doo wax Cheikh Ba quoi que ce soit parce que yow koo xamante ne taxawu na la subax ngoon bu dex bëccëg ku la taxaw subax bu dex bëccëg yow tey nga ëlbatiku yow. parce que c'est intérêt personnel moo tax yow tey nga ne yow da ngay dal Cheikh Cheikh Ba yow doo gor yow yaa gore di mais lenn dinaa leen ko wax tey nga xam ko yow Cheikh Faye gis nga Cheikh Ba boo ko bàyyiwul di ko attaqué ci yenn détails ay affaires yu ñàkk fayda yoo xamante ne ni mooy loolu yow dinañ ñëwee neneen nu dul def ay vidéo loolu bu yow nga teel ko def sa bopp. salaamaaleykum waaw gars yi maa ngi nuyu ñëpp leen ziar di jox kenn ku nekk euh, sa yéeguwaay. waaw di wax ne rek ne euh, tey tey nag moom neexul ba neex euh, am na loo xamante ne ne yàgg naa am ñu koy gis mais rawatina tey dafa am lu ñu metti nekk naxar suñu biir xol waaw mu nekk euh, secrétaire général CATB bon génn di def ay sorties di def ay di def ay communiqué yoo xamante ne ne maanaam rafetul ci suñu leader muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu nekk mu nekk suñu mettit métit boo xamante ne tey jii maanaam euh, mën nañ ne euh, sori na suñun trop ba tax na te ñoom euh, moom Cheikh Ahmed Tidiane Faye Cheikh ba lu mu ko defarul amul te loolu leer na nit ñëpp képp ku képp ki nga xamante ne maanaam tey jii nii ba si njabootu Cheikh Ahmed Tidiane ba nga xam na ne ne Cheikh ba protégé na Cheikh Faye ci dimension bu ne jël na ndombal tànk bu nekk jox ko mais à chaque fois saa bu ñu ko dénkee mu ciy def ay affaire yu jubati ba ñëpp xam ko ci moom kon tey jii je crois que ne bu demee ba mouvement bi ñëpp comprendre loolu 4 avril bii moo ci mujj liñ ko jox ak li mu déclaré ça deux ñu bàyyi noonu mu jàll ak yeneen événement yoo xamante ne wallahi al azim ku dee ak sa bàmmeel Cheikh Faye am na yoo xamante ne sax maanaam euh, di ko wax sax rafetul mais tey jii ce qui est sûr et certain mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba gor la koo xamante ne tey jii saa bu taxawee ci Médina képp ku ànd ak moom rek fierté ngay am fierté fierté dëggantaan ngay am parce que tey jii képp ku dëkk Médina xam na kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba ci njëriñ ci njëriñ bi muy jëriñ doomu aadama yi ba tax na tey jii am na loo xamante ne ne ñun bu ñuy toog di ko dégg si réseaux sociaux yi dañuy am naxaru xol Cheikh Ahmed Tidiane Faye temps à que nga arrêté Cheikh Ba du som morom Cheikh Ahmed Ba du som morom tey jii dafa jot du Cheikh Ba de mais mbooloo bi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak njabootam ñoo xam sa di sàkku ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba ne na la fa jëlee te yow amoo benn pièce justificative boo xamante ne mën nga ko teg ci kaw taabal bi je crois que ne tey jii nii boo amee looy wax je crois que ne da dem nga avancer si loolu leeral setal sa der moo gën yii ngay wax il temps à ce que nga arrêté wasalaam